mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di nuyu di ziyaara di leen ci weeru tedd yi ak guddi yu mag yi rawatina jataay bu tedd nga xam ne moom la ñu amal ci béréb bu sell bi mu bokk ci yëngutu yi ñuy fàttalikoo guddi gu tedd gi ci sukkan rañaan ma ak yéeg gane jamono Cheikh Mouhamadul Fadil radiallahu taala anhu di jiital ci nuyoo bi euh, ki nekk ci bopp Fadil yépp mu Cheikh Abul Baraka Bakke di ko baax di ñaanal yàlla gudd fan bu yàgg lool te ànd ak wér ba lépp li mu yéenee liggéeyal waajuram yéene ko liggéeyal maamam mu def ci lu koy jot di ñaanal it mboolem rakab yi tat si tubaab yëpp di ziar bu baax njabootug Cheikh Massamba di fi teew te ñu terale guddi gi ak jataay bi sëriñ di teg nuyoo bi ak ziar ci loxoy sëñ Cheikh moom sëñ Mahmoudan mu jot li ak mboolem jabar yépp di nuyu bu baax ak ziar daayira ci seen toolu maam tomb bi ñu tam tànn bëgg ñu waxtaan ci tey day wane ñor gu leen sëy bi ñor akub liggéeyam ak yëg gu ñu yëg ne am nañu ci responsabilité yittewoo yittewoo googu ak yëg googu moo tax ñu tànn thème bii ñu tànn muy thème am solo ci jamono ji nga xam ne ci la ñu toll di ñaan sunu borom njortul rafet li ñu am ba dénk ñu ko di ñu war ko waxtaanee suñu borom defal ñu ci tawfiq ak taysiir ba ñu waxtaane ko ci anam boo xam ne euh, du tas seen lépp it yàlla nekk lu sell gi jëm yàlla di liggéeyu sëñ Tuubaa bu ñu nangu teg bi ni ko sëriñ Mouhamad waxee mooy yoonu murit diggante démb ak tey ak jafe-jafe yi nga xam ne taxaw ci kanamam mu war koo daan ngir yegg ci ëllëg ju gën moom lañ koy tàbbi ci biir loolu ni mu ko waxee ñetti xaaj des na ko war a mën a séddale waxtaan wi muy du ñu yoonu murit diggante démb kon démb bi yoonu murit dañ ci taxaw ci ay tomb naxar ko taxaw tuuti ci tey ji ñu toll mu ñaareel bi ñetteel bi di jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi taxaw ci kanam yoon wi mu daan ngir ci ëllëg jafe-jafe yi nag ci tey la bokk ci tey la bokk ñu ngi taxaw temm di loo xam ne ñu ngi dox su digganteeg ëllëg ci daan gi koy daan ci lu ñu mën a ci ëllëg yu am déedéet jafe-jafe ya war a am ëllëg nag ëllëg jëndikagul yàllaa ko xam kon waxtaane wuñu jafe-jafe yi ëllëg je yi ñu xamagul waaye jafe-jafe yi teew tey te dox suñu digganteeg ëllëg te ëllëg yi yoonu murid aju ci daan jafe-jafe yooyu bu ko defee bu ñu ne démb démb bi yoonu murid mën nañ ko séddale ñaari mu ñaari jamono jamonoy sëriñ bi ak ñamu àndaloon jamonoy sëriñ ak ñamu àndaloon loolu mi ngi tàmbalee ci bi yoonu murit sosoo ca assasine 1301 ci gàddaay gi ñu ngi war a tolloog mille huit cent quatre-vingt-trois ba mujjug xilaaf ak Cheikh Mouhamadou Fate tolloog mujjug xarnu ci dundug yoonu murit loolu jàpp nañu mooy xaaj bu njëkk bi xaajub mooy jamono joo xam ne ma ñu ko tuddee asru taabiin mooy jamono ji topp ci jamono sëriñ mooy jamono ji nga xam ne euh, jamono te wuñoo sëriñ bi mu yar leen donte mën nañoo fekke jamonoom waaye jamono te nañoo ña jamono teg sëriñ bi yaru ci seeni jaari ca seen yoon jamono jooju mën a jàpp ne mi ngi tàmbali ci xilaaf ak Cheikh Abdul Ahad ba ci mujj xilaaf ak Cheikh Saleh radiallahu taala anhum ajmain mooy jamono yi ñaareel ji nga xam ne mën ko tuddee asru taabiin kon loolu mooy jëm bi yoonu murit mooy ba yoonu murit sosoo daal ba ci mujjug jamono Sëriñ Saaliw mooy tàmbale ci 1883 ba 2007 diggante boobu yëpp mooy jëm bi murit yoonu murit jamono tey bu ñu waxee tey nag mooy jamono ji ñuy mu jamono joo xam ne ñi ne jamono te wuñoo sëriñ bi mu yar leen jamono te wuñoo ñu jamono sëriñ bi mu yar leen waaye ci ginnaaw ñooñu doonte gis nañ ñooñu waaye ginnaaw bi dañu ñëw ji jëkk ji mooy jamonoy ji ci topp mooy waajur જીવના કલાક મોય સદી con tay con moi troisième masse pour la génération ci dunduk yoon murit mooy tey bu ko defee ñu doog a ñëw nag ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ci kanam yoon wi ñu war koo daan ngir mën a yegg ci ëllëg ju gën yoonu murid mooy woote sëñ bi mu woote ci lislaam yeesal ko ni ko sëriñ Muhammad waxee ab tënkam mooy dëddu àdduna jublu ci yàlla di sàkku ngërëmam ak tuyaabak ëllëg tuyaabay ëllëg dëddu àdduna jublu ci yàlla di sàkku ngërëmam ak di sàkku tuyaabay ëllëg mooy pas-pas bi ku am pas-pas nag da ngay ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wut jëwriñ joo jox sa bopp joo xam ne dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wa ci zahir ak baatin matal sharia matal xaqiqa nga jaayanteeg moom mu di la wommat ci di la xamal ak yar ak di yëkkati sa yitte ci jaamu yàlla loolu ma ne jàpp ne mooy yoonu murit mu am ay fondement ak i cosaan fondement yi mooy liimaan ak lislaam ak lislaam mooy am pas-pas wéetal yàlla di topp ndigal di bàyyi tere tey sellal loolu mooy cosaan yi usus fondement yi bu ay tabax ñu mooy fondement bi féete suuf nga xam ci la tabax bi tege am mu am ay keno ay ponk yoo xam ne mooy euh, xam-xam bu am jariñ ak jëf ju baax ak melow melow rafet mooy alal mun naata wal amalu saalix wal adab al mardi kon ci tënk rek mooy yoonu murit détaillé ko waxtaanu boppam la ñu ngi sosu ci euh, njëlbéenu atum junni ak ñetti téeméer ci gàddaay bi mooy njëlbéenu xarnu fukkeel ak ñeent ci gàddaay bi ca Mbàkke Kajoor ca ba sëriñ bi taxawee ca kanam taalibe ya ya doon jàng xam-xam ne leen ku fi njàngum indi woon ma ngaa seeti fi koy defee ku bëgg ànd moom ñoom ci doxin wu yees yu mu man ngaa toog ba ñee jaayante mu jaayante ñoom moom kon booba la sosu mu sosu ci jamono joo xam ne fekkoon na lislaam ci ay tolof tolof fekk réew mi ci ay tolof tolof tolof tolof yi mu fekkoon lislaam mooy fekkoon na mbooloom jullit mi e, réer gu tar tasaaroo ci seen biir ay bidaa yu bari ak jàdd yoon itam tasaaroo biir ak jikko yu yàqu xam ne jëmmi lislaam ci boppam rek dafa aajo ku ko xetli ku ko defaraat ku defaraat pas-pas yi ku xamalaat nit ñi ku leen tegaat ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa ku defaraat seen jikko mbooloom lislaam ànd nekkoon ci ay jafe-jafe di jànkoonte ki ceddo ak i tubaab yu leen di kon fekkoon na lislaam ci ay tolof tolof yu metti yu bëggoon ku ko ci génne bu fekkoon mi ci ay tolof tolof yu metti fekkoon na booba tubaab yi dugg ci réew mi ba not ceddo yi ak sëriñ ba jàpp ne ak noteeram ci réew mi mat na li mooy nag soppi waa réew mi ba ñu moom ci diine ak aada ak cosaan ak i xalaat ak i doxalin mu daal di tër nag stratégie ak indi méthode wala système d'éducation boo xam ne doxal ko moo ko dese ci diir boobu jamono jooju nga xam ne kon réew mi soxla na ku ko xetli diine ji soxla ku ko xettali ci la yàlla feeñal ki xettali jamono Cheikhuna Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu mu ñëw jamono ngir xettali lislaam ngir xettali réew mi jaare ci xettali àdduna sépp kon ci tolluwaay yu mel noonu ci la sosoo ci Mbàkke Kajoor sukkandiku ci jàngale ak yàlla diir bu gàtt la def Mbàkke Kajoor lu xam ci at lay war a toll daal di fay jóge ñëw Mbàkke Bawol def fa ñaari at sanc Daaru Salaam def fa ñaari at ñëw Tuuba sanc ko def fi juróom ñaari at lépp soo ko boolee mu war a mat fukki at ak ñaar tàmbalee ko ci 1301 ba ci mujjub mille trois cent douze ci gàddaay gi mooy mille huit cent quatre vingt ba mille huit cent quatre-vingt-quinze di fukki at ak ñaar ci fukki at ak ñaar yooyu ci la mbooloo ci ay taalibe moo xam ne ñu ko bàyyee seen bopp lañu mu yar leen ba def ci moom ci ñoom la mu bëggoon a def ci ñoom ba tasaare leen ci biir réew mi ñuy yar ñeneen ci anam gañ leen yare woon yoon murit nag daal tasaaroo tasaaroo bu gaaw a gaaw a gaaw ngir melokaanu sëriñ bi xam bu bari bi mu yoroon te xamoon ko lu jiitu muy sos yoon murit ñépp jàpp xam ne gëm ne moo fi raw ak melawu yéeme yu mu yoroon ci dëddu àdduna ak sàmm ak jublu yàlla ak faabu waaye e, ci liggéey bu rëy bi nga xam ne def na ko ci lislaam ci diir bu euh, gàtte noonu tax na yoon murit tasaaroo ci diggante Kajoor ak Bawol ak Njàmbur ba aw turam ak fu bi mu tasaaroo ci la ñi nga xam ne ñooy ceddo yi te tubaab yi notoon leen ba noppi wëlbatiku doxale leen ci seen diggante mbooloo mi ci la seen fiiraange yëngu ak seen xolu ki ñaan ñu tàmbalee xatal taalibe murid yi kilifa yi cheikh yi di leen bundu xatal di taal seeni kër di nangu seeni euh, alal di leen fitna di xatal ba yegg ci kalaame leen ak tubaab yi ngir bëgg ñu fitnaal ci loolu ci la tubaab yi gisee sëriñ ci mille huit cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre mooy jokkoo bi njëkk am ci taarix ci diggante sëriñ bi ak yi tubaab yi laaj ko mbirum taalibe yi mu leeral na mu demee ñu xam ne ñoom defuñu dara lu jar ñu leen di kalaame tubaab yi wax ceddo yi ne nañu bàyyi taalibe murid yi seen sago ndax defuñu benn trouble te ñàkkuñoo tënku it ci lii ci fay impôt ak ya demee noona kon nañ leen bàyyi bañ ca tegee diir bu gàtt euh, sëriñ bi jógee Touba dem Mbàkke Baari sanc fa yëngu bi gën a rëy mbooloo mi gën a yokku tur yi gën a tasaaroo euh, ceddo yi nag gën a laxasaayuwaat tàmbali nag jaxase di diggante tubaab yi ak sëriñ bi ci boppam di ko wan moom euh, ginnaaw bi nga xam ne tubaab jàpp nañu daan nañ sëriñ si ak ceddo yi ba defee leen not réew moo leen dese am na ku ku gën a garaaw cedda yi gën a garaaw sëriñ si ndax fi mu yàgg ci xol yi ko topp ni ko gëmee ak ni ko déggalee ak mbooloo mi ko topp ni ñu baree eh, ak eh, may gi ko yàlla may eh, kooku nag mi ngi waajal mbooloo leen ngir bëgg dal ci kaw tubaab bi génne ko réew mi ngir sos ci nguurub lislaam di waxtu ma yu noonu di ko won euh, tubaab yi ba mu yàq seen ñu daal ci jële sëriñ bi yóbbu ko Gabon mu am fa juróom-ñetteelu mag gi ñu dooleel si ko mu dem Daaru Manaan jàggul dara euh, pexe yi noon yi ak cato yi tàmbaliwaat tax ñu jële ko fi yóbbu ko Mauritanie mu am fa ñeenti at ñu jële ko fa delloosi ko Sénégal téye ko ceyeen ca Jolof ci résidence surveillée indiwaat ko itam jaareem naka noonu mu am fukki at ak juróom euh, ba ni mu ñibbisee Touba ci mille neuf cent vingt sept le dix neuf juillet ñaar fukki tam xarit sis eh, li kon kor di yoonu murid njëkk am ci soiram mooy gàllankooru tubaab yi jël gi jël sëriñ ko di ko fu sori ngir mu teqale ko mbooloo mi buñ ko indee ci réew mi ko fi benn barab ngir dox diggante ma mbooloo mi gàllankoor boobu kon moo jëkk ci gàllankoor yi yoon bi ci taarixam tubaab yi jamono nañ ba wóor leen ne tuuma yi ñuy wax sëriñ bi dara amu ci dara waaye wóoroon na leen ne sëriñ bi li muy def jihaar la li muy def jihaar la yoo xam ne da ci jàmm te bu sottee ñoom li ñu bëgg duñu ko am ñu jàpp ne yoonu muqaawama la islaamiya wataniya mooy jihaar jihaar la jihaar lislaam la di xeex bu nit di xeex bu nit di xeexal ak réewam te lépp mu ko def ci jàmm ñu jàpp ne bu ñu ko bàyyee mu def liggéey boobu na mu ko bëggee def benn gàllankoor su ab liggéeyam antoo ñoom jeexal ci réew mi du ñu mën a not nit ñi du ñu leen mën a génne ci diine islam du ñu leen mën a jox xelum tubaab du ñu leen mën a jox seen jikko ak seen aada te loolu lañ bëggoon te moo leen dese euh, kon ñu xam ne mi ngi xeex ak ñoom kon ñoom it dañuy xeex ak moom loolu moo tax bàyyiwul ko diiru dundam ci zaahir te wóor leen ne euh, tuuma yi ñuy wax ko formalisé moom nekkul ci moom waaye xamoon nañ ne nag li muy def bu àndoo ñoom ñu jeexal kon loolu mooy gàllankoor bi yoonu muy jëkk am ci ak ak dundam sëriñ bi ñëw Touba ñibbi si Touba ginnaaw bu mu fi aw yoon ginnaaw bu mu aw yoon woo xam ne dafa delloo si lislaam ju ni ya yonent bi saa sam doon dund mook ay saxaabaam moom la delloo si waat yar mbooloo mel ni mbooloom ma àndoon ak yonent bi saa sam ci lu wuutale ñaari dund yi wala ñaari mbooloo yi ci béréb lay dellu mbaa ci jamono waaye benn lañu kon bàyyi na fi ab woote aw yoon mu dëppoo sunna woo xam ne mook dafa dundal lislaam yar nit ñi ba ñu dund bu niroog te saxaaba ya dul dund àndoon ak yonent bi wuuteeg ci am wuuteeg barab la ak wuuteeg jamono ak wuuteeg ay nit waaye du wuuteeg pas du wuuteeg jëf du wuuteeg melo bàyyi kon woote bu mel noonu woote boo xam ne dafa am projet projet de société maanaam dafa lamboo aw doxaliin wu mën a suqali am réew mën a suqali àdduna jëmale ko kanam lamboo it aw ab système buy tabax aw xeet mooy euh, euh, système pédag ki euh, système d'éducation boo xam ne day defar aw xeet di ko tabax mu bàyyi ko muy luy walaabal ba ak day fukki xeet bu ko jëm kanam xeet bu ko jëfandikoo euh, mel na yàlla bëgg mu bàyyi si woote bu mel noonu mu yoonu murit mu def loo xam ne mi ngi njëkk a am ci histoire nit ku ñuul mooy jokkale xeetu Afrique bu ñuul gi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen borom directement te du ñu génn seen réew nga nit mën naa jokk ci euh, ku jokkale ko yonent bi mu am connexion mu yóbbu ko ba mu àgg ci yàlla te du génn frontières yi euh, fii digg-digg bi mu dëkk di kon yoonu yàlla yoonu yeggale ci yàlla njëkk a sosu te nit ku ñuul sos ko muy tariqa suufiya bu njëkk ci Afrique bu ñuul gi te nit ku ñuul sos ko sëñ bi bàyyi loolu te muy loo xam daa wuuteeg tariqa ya ko jiitoon ak mbooloo ya ko bu ñu ko dee seet dañuy ne yoonu mu ëpp na tariqa ko ndax tariqa mooy biñ xamoon wérd bu ami sart ku ko jàpp képp ci sart ya bokk ca ku ko bàyyi jënd ca yoonu murit ëpp na loolu am na wérd ni ko tariqa yëpp amee waaye eh, ëmb na lépp lislaam yëpp ëmb na ko na yoon bi meloon nga xam ne ku ñëw ci moom mu mu xam la gën ci yow teg la ci yoon wala yóbbu ci yàlla noonu la defe te noonu la ko yonent digaloon ne ko na yar sa taalibe ci te ju kawe te bu leen yar ci njàngum kese te kenn ku nekk na nga jëflanteeg moom ca la yenn ci moom nga xam ne taalibe murit li mënta ñàkk ci moom ngir mu dugg ci yoon yi mooy jaayante jébbal jébbalu mooy li ci mënta ñàkk soo ko xasee def nag sëriñ bee seetal ci yoon yi jëm ci yàlla te toll ni li mu bindee fii yoon yu bari yooyu mu seetal la yoon woo ca méngoog yow mu teg la ca yoon woowa ba nga àgg ci sa boroom moo xam wirdu la lay jox moo xam leneen la lay digal waaye noonu lay def te noonu tam la yoon bi sas na def ku ñëw ci moom laaj ko ban lan moo gën ci jëf yi danay tontu tontu koo xam ne bu ko keneen laajee du bokk ak la koy tontu mooy ku nekk danay tontu ci la sa mbir kon ku nekk sàkkal na la aw yoon bu lay yóbbu yow ci yàlla boo xam ne day méngoo sa melokaan ak sa tolluwaay moo tax Cheikh Sidiye Baba wax ko ne ko antal murabbi bi ma rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin commencé ji ji sa waa yow dong yow dong la wax yow ci sunu nu nit ay nit yàlla ay tarixa yaa fi yare na yonent bi sala sam daan yare kon sëriñ bi fi yoon wu mel noonu bàyyi fii ay yoon woo xam ne fi bàyyee yaram na ci mbooloo taalif ci ay téere euh, yoo xam ne moo koy leeral bàyyi fi ndoroon wéy ci xam-xam nga xam ne ni mu yeesale ci jëf noonu la yeesale ci wild mu yomb lu fag ba àddina yi tukki bi muy euh, ñibbisi Tuubaa mu am plan bu mu tër maanaam lu mu rëddal yoo taalibe yi bàyyi leen fi ñu war a dox ca loola mu bàyyi fi ñaari ndigal ba ñett bu njëkk bi indi tuubaa mu dëkkaale fekk boromam loolu xalifaam bu tedd ba Cheikh Mouhamadou Moustapha defal na ko yàlla na ko yàlla fayal ci barkeem ñaareel ba mooy mu tabaxal ko jumaa ñu tabaxal ko jumaa ju mag ci Touba mu joxe ci digal ko muy digal lu fi war mu ci ay naari boole ca naal nitabaxal ko ci Touba ab jàngukaay daara xam-xam yoo xam ne bu sottee mooy doon lampu xam-xam jëneeru xam-xam bi indi waa sow jant yëpp mboolem ñi nekk ay jullit dëkk Afrique yëpp ci sow jant daara jooju mooy doon seen lamp bu leen di leeralal ni ko yeneen daara yu mag yu siiw ci histoire doone ci penku mu naaloon itam daara ju noonu nañ ko ko ko tabax ginnaawam mu bàyyi fi ko ñaari naal yooyu boole ca dëkkam bii di Touba nga xam ne la philosophie jëkk yi daan gént di ko imaginer muy li wax al madinatul fadila muy cité modèle te mooy réew mu jaar yoon wala dëkk bu mu ci nu mu moom la final bind ko bind nam bëgg mu mel ko ñaan ko boroomam ba may ko ko mu bàyyi fi naalu sottal ga ci loxo yi taalibe yi ñu war sottal kon yii naal la fi bàyyi ginnaaw bu mu fi bàyyee lii ma njëkk a wax mu yoon wi ak li ci aju ak mbooloo mi ak dëkk yi ñaar ñi ko njëkk wuutu te bokk ci jamonoom mu yaral leen boppam Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadil seen seen liggéey la ci ëpp ñoom magi taalibe yi bokkoon ak ñoom yaroo ci keppaaru sëriñ bi ak booloo ya leen topp ci sottal naal wu ci lañu nekk ba yeggale ko muy jumaay Tuubaa ba mu yàgg colet ba ñu songu naanu defar Touba euh, nga xam ne Cheikh Mouhamadou Fadil ni yeggalee jumaa ji song na naalu defar dëkk bi ba xotti ba teg ko ci yoonu mu yokk jëm dëkk bi ko sëriñ bi sëriñ bëgg mooy natt na ko maanaam liggéey nañu ko yokk ndox mi sàkkal ko ay yoon yu ñu tali yu jóge ci mboolem xibla yépp ba ñëw fi yomb indi fi courant indi fi ndox sos ci daara xam-xam muy bii seen juróom bi euh, ba teg ko ci yoonu ndox jëm kanam euh, kon bi jamono ji jëkk ji di jeex mooy jamonoy sëriñ bi ak yi àndandoom euh, fekk na kon euh, yoon muy dox na jéego yi ci sottal ay naar bi loolu amee ci diir boobu yoonu murit am na fi ñaari jafe-jafe yu bokkut ak jafe-jafe yi yi sëriñ bi jànkoonte moom ci boppam mooy téye gi ko téye woon ngir bañ mu wéer ak liggéeyam ngir xam danger bi ne ci liggéey boobu jafe-jafe yi benn bi mooy tasaaroo gi yoonu murit tasaaroo ba yegg ci ay béréb yu bees yoo xam bokkut ak fa mu juddoo yoon murit ngi juddoo ci àll bi ci kaw gi ni ñu yara it ñu ngi ko baraloo ci dundu kaw système éducatif bi muy li ñuy yare daay tarbiya condition ya ci àll lay sottee ci la yombe murit yi nag tasaaru ci dëkki taax ci kaw yalla ya, anu murid yi ya, to tuxoon ci to dem ci taax yi ci biir taax yooyu sax am na ci ci fa cosaanoo dug ci biir yoonu murid tey war wara dund nag murid gi ci milieu yu bes yu bokku tak ya mu juddoo won loolu di jafé bu yoon ci jànkoonteel waye ci limaru yalla ak barke serigne bi li jënti na jaxay jafe bobu ci fu mbooloo murid nek boole seen bopp muy benn ci benn nos ñuy daje benn ñu benn barab bu ñuy daje di fa euh, xamante di fa jaamoo yàlla di fa jote seen diggante kilifa di fa dajale seeni ñaq yu ñuy def ci projet yi yoon wi difa dundal yo gis yoon wi ak gis islam yi waaye di fa dimbalante ci seen biir di fa dëgëral seen pas-pas di fa jàng seen xasida loolu ci la li ñu tudde daayira soso kon ci sosu daayira ci la ñu lijjantee jafe-jafe taalibe yi dund taalibe gi ci béréb yoo xam ne bokkut ak béréb yi nga xam ne ca la ca fànnoo woon daayira yooyu euh, jàpp nañu ne mi ngi sosu mi ngi tàmbalee sosu ci mujjub jamonoy Cheikh Mouhamadou Moustapha wala njalbeenu jamonoy Cheikh Mouhamadou Fadil euh, ñëpp xam nañ ne itam Cheikh Ahmadou Bakké Gaynde Fatma euh, initiative sos daayira wala organiser ko mooy ci yoonu murit mu liggéey liggéey bu dem nag ba yokku ba jël ay forme yu bari yu bokkul waaye lépp nag nekk lu am solo ci luy dimbale yoon wi ngir mu mën a dund ci milieu yi nga xam ne fépp cosaanu foo juddoo foo woon euh, ci la daayira yi cosaan yi am mooy daayira yi nga xam ne murid yépp lay boole euh, ñi bokk Sëñ Tuubaa yépp rek lay boole ñuy dajale seen ñaq di ànd ca nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk ñu dem ba yàgg ay daayira di sosu yoo xam ne xam-xam moo leen di boole mooy daayira yi euh, di sosu euh, ngir ay sas yu ñu soo ci liggéeyu Sëñ Tuubaa Euh, ay ay sos yoo xam ne dafa am lu ñu nam ma def rek ñoom ci yoon ko liggéeyee euh, daayira yu ma noonu tàmbali di sosu euh, lu mel ni daayira Matlabul Fawzayni ak ya xeetoog moom ñu dem ba ay daayira di sos yoo xam ne day jokk bokk di dundal ak kóllëre muy di ki daayira kër yi ak sët yeeg yu noonu waaye yooyu yëpp nag doon ak yëpp yoo xam ne taxaw nañu ay taxaw yu am solo ci dëgëral yoon wi ak jëmale ko kanam loolu di lu xew ci jamono ju jëkk ja di gën ci jafe-jafe boo xam ne yoon wi jum na ko ñetteelu jafe-jafe ci jafe-jafe yi nga xam yoon wi jum na ko ci jamono ju jëkk ji mooy jamonoy sëriñ bi ak ñaari xalifaam yu njëkk yi mooy jamono jëkk ji mooy jafe-jafe soppiku gu tàmbulee am ci jikko yi ak doxaliin yi ay ay jëf yi yu wuuteeg yoonu yoon wuuteeg ni sëriñ bi rëddee tàmbulee am ñépp dégg nañu ne sëriñ mag bi ci mujjub jamonoom jataay bi moo sees si ginnaaw bu mu yëgee ne li sosoon yoon wi muy xiif bu metti ak bu nit demee ba mënta ñàkk a lekk mu lekk lu naqari loolu mu ngi tàmbalee sot bu gaa yaa ngi tàmbalee mos ñu ngi lekk yémuñ ci di lekk waaye ñu ngi lekk lu neex ba loolu mu ngi tàmbalee jeexital ci yaram yi sëriñ bi teh diwah di wax ne nañu wàññi lekk bi kon lekk ndeke lu bees la lu njëkk a sos nag ci yoon yi lu bees lu mës lu amutoon na Mamadou Dem Diop Dagana mi ngi wax ne lekk ba suur mi ngi si bari delegasi yi nga xam yang ñu di di ko seet ci ñu war leen di berleen ñu togg ay ñam yu neex ta bari yenn tàgg yi ci foofa lañ tàmbalee di lekk di ñëwee njaaram nag mu gën a yokk ba jur sëriñ bi woote di digle ñu wàññi lekk yi ba sëriñ bay saar di jóg naan ko man day mbàkkee man fekkeet ma ca maa ngi ne ñett mu ne ko bay saar bàyyi bu may wax ngay xajala sa bopp alalu ñett ak boo boole ñett bi koo ko defal boo nee ñett bi loolu beneen jafe-jafe mu jafe-jafe tàmbulee sop soppiku bu tàmbulee am ci doxiinu murit ñu teg ci ab diir mu mel ni euh, luy niru puukare ak yi xumb-xumb mi ngi tàmbalee am ba loolu tax kenn ci màggi sëriñ bi di borom xam-xam mag ku am wàccuwaay di sëriñ Mbàkke Bousso jël xalimaam di laa diire ñi nga xam ne ñooy bopp yoon wi di banoo balla mbàkke mbàkke yi nga xam ne ñoom ñooy waa yoon wi te yoon wu jaarit ñoom la mbooloo roy ba mu tàmbalee seetlu mu daal jël xalimaam daal di bind ba ñuy balla ba ñuy balla wabnul binti najlu jalidi rakabtu bi suuqil fadli kulla najidi xasida bu daw yaram boo xam ne da cay ñaawlu ay doxin yu bees yu tàmbalee gis muy xew te amutoon mu di ca wax ne yasuqu ala al miskini هدي أبا عين بنور لكم جالد دجا بنور لكم جالد دجا سقوبي يشق على المسكين أحد أبا عين بنور لكم آه، جالل دجا سقوبي am na nu mu ko waxee mooy daal metti na ma lool man njaam si metti na am na am na metti lool bu leen yàlla joxee ab lumière boo xam ne ña ca sori sax ña nga cay gindikoo yéen ñi sës rek ngeen mel ni ko fa in tarshuduu wa in tànkisoo yanqis uluf boobi yéen ñi nga xam ne bu ngeen jaaree yoon mbooloo bu bari jaar yoon waaye bu ngeen jàddee yoon ñu bari jàddee yoon ñu teg ci ay diggante denc dajale alal denc ko ak di defar ay kër ak a takk ay soxna tàmbulee xel ci yoon wi ñu bàyyi looy tànn luñ dajee yóbbu ñu ci ñu ci ñu ci kilifa gi tàmbalee wàññi ko am ñuy am ñuy téye as lëf di ko dugal ci seeni soxla ba lenn ci waykat yi jamono ku mel sëñ Bay Jaxate ak sëñ Moussa Ka di di yu mel noonu ku mel sëñ Moussa Ka ngi naan addiyee jooy na nee na luñ may laaje gannaaw ba duñ ma jox borom jumaa ji waaw nee na at yi jooy na nee na ginnaaw buñ ko laajatee di duñ ko jox borom jumaa ji di wax bay wax naan am na koy juddi ci murit gi di tuddoo murit di daw ba am ay murit te taxu ko doon murit tam di jafe-jafe yu tàmbalee am ci yoon wi kon ci tëkk mooy li ñuy wax ci dégg murit ci xaaj bu njëkk bi wax na li yoon murit sosoo ak nañ tasaaroo ak réalisation yi am ci jamono bu njëkk yi yu matériel ak yu moral waxit gàllankoor yi am ci biir boobu gàllankoor yu jóge ci biti ak yu jóge ci biir ci jamono ñaareel ji ci dém bi yoonu murit muy jamonoy tàmbale ci xilaaf ak Cheikh Abdoul Ahad ba ci xilaaf ak muñu xilaaf ak nga xam ne jàpp nañ ne loolu mooy ñaareelu jamono bi mooy jamono ji nga xam ne euh, ña ko jiite fekke jamonoy sëriñ bi fekke nañ ci jamonoy sëriñ bi waaye yaroowuñ ci ay loxoom ñu ngi yaroo ci loxo yi ñu bi yar waaw ah, ñu sëriñ bi yar ñoo leen yar ñu fab seen pasteef ak seen dox yi doxe ko ba yàlla woo leen nga xam mooy asrul ittibaa wa saabiquuna lawaluuna min almuhaajiri wala sari wallazina tabaxu bi ihsaanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa anhum jannaatin tajri taxta al-anhaar fiihaa zaalika fawzun aziim kon mooy jamono yi taabi'iin mooy ñaareelu jamono bi mooy jamono yi euh, euh, doom yi jamono jëkk ji mooy jamono yi maam yi jamono ji mooy jamono doom yi euh, nga xam ne li ma ko waxee ñi ko ŋànk dañoo yaroo ci loxo yi ñoo ne sëriñ bee leen yar waaye nag ña ëpp ci jamono jooju ña gën a bari ca waa jamono joojee euh, fekkewuñu jamonoy bi euh, ku jamono te sëñ bi yaru leen moo ño ñi ëpp ci jamono jooju jamono jii may wax ñi ëpp nga ña fa doon dund fekkewu jamono sëñ bi yaruwu nit ci loxo yi ku fekkee jamono sëñ bi maanaam yaru sëñ bi te booba fekk na ñi sëñ bi ya sëñ bi dal na moo fi gaayam moom dem nañu ba jeex ay benn benn ñoo fi des ay caatam ak caati ay euh, mag ñamu yaroon ak i euh, ak seen doom mag ñoo ñoo ñoo fi des ak yi ay taawam taaw yi ay ay ay ay taawam nga xam fekkewu jàmm sëñ ba mu leen di yar yaruwuñ ci dem ci loxo yi ku sëriñ bi yar te yor nañu maanaam te yor nañ xam nañ jamono ju mel noonu bi xarnu sëriñ bi ndax sëriñ Fallou ñu ngi wàcc ci liggéey ci mille trois cent quatre-vingt ci nit ci gàddaay yi nga xam ne xarnu booba quatorzième siècle bi fukki at ak moo ci des mu ceetul xarnu bi te xam nañ ne xarnu buy jeex ak maas da cay jeexee maas bu bees tàmbuli jamono ji nag maas bu bees moo ci ñëw moo ci ëpp moo tax ñu waroon a am ab yarkat ab yarkat bu yare bu yaru waroon a am yarkat bu yaru te amub yar te yorub yar te mën a yare ku ñu mën a tuddee mu jàddik maanaam waroon nañu am daal kilifa boo xam ne mooy delloo siwaat ñu bees nga xam ne dañoo doon gan ci yoon ci juddu ak doxiin war nañoo am ku leen jàngal yoon leen ci ba ñu mën a dëppoo ñañu wuutu kon muy jamono yi yeesal di jamono yi topp xentu muy asul ittiba jamono yi xentu xentu dafa am ñoo bëggoon a àndal dem ci béréb bi nga ñëwee fekk ñu ne la ñooñu dem nañ dem nañ ba yegg fa te ñoom nga bëggoon a àndal nga ne kon ana fu jaar ñu ne la fii nga am dogu ci ne da nga da fekk fa nekk nga topp ci seenu yoon nga xëytu seenu yoon loolu mooy jamonoy xëytu mooy ittiba mooy ñi ñëw ginnaaw jamono sëñ te bëgg a bokk ëllëg ci mbooloom sëñ Tuba te fekk ni ko mu dem moo ki ñoñam ñu war a jaar ci yoonu boo ñooñu jaaroon ngir bu ëllëgee ñu bokk ci mbooloom mooma loolu mooy jamono yi toppe jamono yi sañtu mooy asru ittiba yàlla baaxe yoonu murit kilifa boo xam ne moo tër moo ñu indil ci njàlbeenu jamono jooju lu ñuy mën a ususul ittibaa lii nañ ci bàyyi xel li may bëgg a wax lii ususul ittibaa nañ ci bàyyi xel buñ ci bàyyee xel moo nuy jokkaleek mag ña sëriñ ba ak ñoom àndoon ko buñ ko xàmme jokkale ak ñoom boole ca ñoom képp ku ñëwaat ëllëg ba ba àddee ci sàmmoon teeg mbir ci la nit di bokkee ci mbooloom Sëriñ Tuubaa bokk bu wér bu ñu mën a nangu sëriñ Abdou Lahad indil ñu lu ñu mën a tudde ususul ittibaa mooy Euh, cosaani xent boo bëggee topp mboor boo bëggee topp nit ku dem bàyyi la nga bëgg ko fekk xam nekk ci ak ci jëf ju baax nooy li ci jëkk mooy da ngay am positif da ngay am yitte ju kawe da ngay am itte ju kawe dogu ci dana dem dali ña ma rawoon ñoo bëggoon ànd te fekku ma leen fi danaa leen dabi fekkee fañ nekk da am itte jooju moo jëkk moo tax mu daan wax ne Sëriñ Tuubaa digganteem ak jamono yonente bi salaasal mat na at yu tegal te teewul bi mu ñëwee fexe na ba ña bokkoon ak yonent bi jenn jamono di dundanteeg moom appelé ko ci kon ñun ñi nga xam ne di Sëñ Tuubaa demee ak léegi bëti de boo njaay la ña bokkoon ak moom jamono bu ñu mënee bu ñu ëppalee ci moom danoo amul jom mbaa amunu faya kon indi na it tey bokk ca mag loolu mooy indi xecc bala nga mën a xecc da ngay am itte yi euh, mel ni ka ngay xecc mel wala nga yegg fa mu yegg ñaar da ngay jaar ci yoon wi ginnaaw ñoom dañoo dem am yoon wu jaar focc la ba yegg lay tax nga dab li ma da jaar ci yoon wi nga xam ne ca la ñooñu jaaroon mooy ginnaaw boo amee doogu fekki leen da nga jaar ci yoon wi yoon wi ngir ñu xamal ne Sëriñ Tuuba susul ab tariqa yoon wa yonente bi sallallahu jaaroon ak i saxaabaam moom la fekkoon mu far mu gàjji gàjji bi buub ñax mi jaar ca jaarale ca mbooloo moom àndaloon kon yoon mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa boole ko nga xam da ngay nangoo tënku ci njàngaleem Sëñ Tuubaa bi nangu yàlla doon sa borom euh, nga di jaamu wéetal ko doo ragal ku moom doo yaakaar ku moom doo wéeru ci ku moom di topp ndigal yi di bàyyi tere yi fab sa lépp jébbal ko sëñ Tuubaa na sëñ Tuubaa defoon yonent bi ñu war koo def ak moom dami wa ahli wa awlaadi fidaau lahu abdan xadiman lahu mustaanali sanada lahu garniyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jismaani wa kulli bi la sukri kon jox si sëñ Tuubaa si lépp ci ak sopp ak liggéeyal ah, kon loolu mooy jaar ci yoon bi tënku ci lislaam ci sunna yonent bi jox sëñ Tuubaa sa lépp sax ci ko liggéeyal mu ñaar ñetteel ba mooy nga wattandiku ndog yi yéeg sa kanam ci kaw yoon di la dox di la dox nga wattali ko obstacle yi nga wattali ko obstacle yi mooy pakk yi ak gàllankoor yi mooy àdduna bëgg àdduna ak wut ko mooy lay gàllankoor ba dëpp la ci yoon woowu nga xam moom nga jaaroon ngir bëgg a mag ñu baax na ci la waxee ne man day fas naa yéene lu àdduna jël ci man da koo te su ma ko xamee danaa ko daal nangu ca saasa kon ñetteel mooy wattu pàkk yi ak gàllankoor te mooy dëddu àdduna ñeenteel bi mooy wattu ñeneen ca bitti yoon nga di leen romb di dem ñu lay woo bëgg laa téye bëgg laa gàllankoor mooy ñiy fàbbee te loolu mooy te loolu mooy loolu mooy mooy mooy pop ak caaxaan ak korkoroor ak lépp loo xam ne luy gàllankoor nit la wala lépp loo xam ne lu ne ca bitti la dina sànni xeer mbaam lay attaqué yooyu ay ay ay yu lay pape euh, bi ci noonu kon ñoom ci lañu jaare teg seen tànk fa ko mag ña tegoon ba dundu dundiinu mag ña yar ci mbooloo mi ànd ñoom ba ci jamono jamono ñaari euh, xilaafa yooyu jamono Cheikh Abdoul Cheikh Abdou Qadir Cheikh Saleh yoonu murit ay jéego yu wéy jëm kanam ci sottal yéene sëriñ bi ci Tuubaa ak ci xam-xam ak ci yar yar ak jàngale ci tabax ay jàkka ak ay jumaa loolu kon di réalisation yu am ci jamono jooju gàllankoor yi ëpp solo ci am ci jamono jooju euh, moom mën nañoo wax ne jafe-jafe yoonu murit ci wàllu jafe-jafe yu ne ci biir bariwutoon ndax yàlla mayoon na yoon bi kilifa boo xam ne bi mu ñëwee tegaatoon na nit ñi ci aw yoon bañ tege ci mu taxaw temm nag ku nar a jàdd yoon bi mu delloo siwaat la ba jafe-jafe biir bari wut bari bari wut yoon waaye amoon na jafe-jafe ci jóge ca biti ay attaque ak day songu yoonu murit waaye yooyu itam kilifa yi ñu ngi doon wan taalibe yi ne buñ bàyyi xel yooyu ak ñooñu ndax Sëñ Tuubaa ku ñuy xeexal waaye ku ñuy liggéeyal la ndax moom wax daana wax ne ki ñëw ngir alaaxira jaaxalu ko ki ñëw ngir àdduna jaaxalu ko ki ko jaaxal mooy ki nga xam ne ni ko yàlla def neexu ko te kooka yërëm ko moo gën yedd ko ndax xuluub man lam yuxibbuni ala wajali wala yulaaquuna maaraamu walal baaba kon jafe-jafe yi jóge ci ci ci jamono jooju taxu ko bari lool buñ waxee tey tey murit moo jamono ji ñuy dund euh, muy jamonoy sët yi nga xam ne maam yi jàll nañu doom yi jàll set yi ñoo ñëw muy troisième masse wala loo xam ne moom jamono bi jiitu benn lañu ndax dañoo jege ndax ñi ñi ëpp ñu bari ci ñi jamono jii ñuy tuddee jamono ju bees ci tey jamonoonte nañoo jii ñu génn fekkee njëlbéen ga ba ca mujj ñu bari ci ñun fekkee nañu ñaar xilaafa yi ma wax ba jeexal ko tàkk xam doxiinu yoon wi ci diggante boobu kon euh, dañuy mel ne jamono yooyu dafa jokkaloo ak tey kon dafa jokkaloo démb jokkaloo bu sëkk ba tax na wuute yu am solo feeñagu ci kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk wuutu doomi sëñ Tuubaa yi tàmbale si tam xoto nii baara yàlla na ko yàlla doon leer ak gërëm te tax ci barkeem doxiinu waajuram yi jiitu la doon dox sëñ bi fi nekk Cheikh Sidi Moutar yàlla na ko yàlla wéral ko moom it doxiinu ay waajuram lay dox benn wuute amul ci seen diggante euh, li ñu seetloo rek mooy am nañu bees yu gën a fës yoo xam ne mën naa am ma nga juddoo ci jamono ji ñu génne waaye gën naa tax gën naa fës mooy woote yu bari woote yu bari ak mbooloo yu bees yoo xam ne nañuy woote am nañuy doxe méngoo wute li ñu miin ci doxinu démb ak mag ñi ñuy woote jëme ci seen bopp mbaa ñuy woote jëme ci seen maam te li ñu xam mooy sëñ Tuubaa rek a fi liggéey moom danga ko liggéey cër moo ko séddale ñépp ay taalibe lañu kon kenn amut lu muy woote jëme ci boppam mboolem sëñ Tuubaa moo fi ci sëñ Tuubaa lañu war di wane am jàngale mu lañ leen di leeral Eh, lu ñëw it moom lañ ko war a delloo loolu mag ñi fi nekkoon ñëpp ay taalibe la jàppewoon seen bopp amu ci kenn ku jàppe woon boppam lu ëpp doon taalibe eh, sëñ Tuubaa am na leneen lu ñu seetlu ci jamono tey mooy tàmbuli ñàkk tënku ci kilifteef ay nit ñoo xam ne mel na seen tënku ci kilifteef des na muy loo xam ne lu xaw day war la dégg nga boole ci jikko yu yu tar yu am xam ne jafe-jafe day am lool ci jëflante koo jëflanteel ñaare lam lay dig du la ko du ko def bu ma nee jaar ci sa kaw jaar it jaar ca bëgg alal tar lool jaral nit mu jaay ba ngoram jaay diineem te murit gi neewoon nañ mooy dëddu àdduna ak jublu àllaaxira su nit ki dëgmale àdduna def ko muy léppam rek pas-pasub murid moom yoratu ko waxuma laa nag yor jikkoom ak doxinam loolu itam lu ñu sàddu la ci eh, jamono ji su ko defee mu am ay jafe-jafe waaw nañ ko tudd nag rek kon waaw tudd ko rek jàpp naa ni ñëpp yoonu murit sëñ Tuubaa moo ñu bàyyi de waaw euh, nañ ko mën a jox tuuti waxtu ci suñu waxtu daal jafe-jafe yi ne ci kanam nga xam ne buñ ko daanewut duñ mën a yegg ci ëllëg ju gën na ci ñu réglé li ñu wax nii mooy woote yu bari yi xew ak mbooloo yu bees bi ñu nañ ko daa defee ci jamono yu njëkk ya ah, tëkkuy ci kilifteef doon wenn say ah, fexee góorgóorlu ci delloo waat suñu bopp ci pas-pasu taalibe mooy bëgg ngërëm ak sàkku tuyaaba te bañ a dëgmal loolu buñ ko defut ah, suñu muri ci boppam moo nekk ci daaxir bokk na ci jafe-jafe yi mooy wattu ndonol sëriñ bi sàmm ko ba mu ñoom xam nañ ne bindum sëriñ bi ay taarifam caxat-caxat ji ak désordre bi bari na ci lool am na liggéey bu rëy buñ ci war a def bañ xàmmee li sëriñ bi bind ak li bindul ak la bindit ñu fexe ba mu dëppoo na mu ko bindee woon di koy sottee noona di ko tasaare noona di ko jàngee noona di ko jottalee noona ndax mooy noona li nga xam ne ci la lépp sukkandiku li ci toppaat mooy xamle yoon wi ak yaatal ko yoon mu ci ne àdduna sépp koo ubbi seen ba ko xool am ci xemmanteef am yaakaar ci ne moo mën a xeetli àdduna waaye ba léegi am nañ jafe-jafe jàngale ko ak jottali ko ba fi mu nekk nii weesoo gu weesoo guñu génn guñu Afrique sax tasaaroo gu ci waxuma laa di jàll ci yeneen réew islam yi wala yeneen réew yi eh, yu dul ay jullit mënuñoo fexe ba jàllale message bi kañ yoo ko mu ñëw it duñ mën a fexe ba téye ko loolu jafe-jafe la bu ñu war a lijjanti njàng ak yar am na jafe-jafe lool am na jafe-jafe jàngal ndaw ñi ak yar leen ci ban système éducatif la ñuy ndaw ñi am na ci jafe-jafe rawatina dëkk bi nga xam ne ci la ñu nekk kon daal am na jafe-jafe bari taxaw suñu kanam yoo xam ne buñ ko daanewul yegg ci ëllëg ñu kii dana jafe maa ngi jégalu mu daayu wax ji ak yaakaar yu jotaay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa